Serigne Bachir nee élection élection yi mi ngi ñew jege na lool té ku ne xam na ne sénégalais yi élection yi da leena ñor li muy ñaan nak moy buñ ci aggé rek lépp nañ ko def ci jamm ak salam mu doon élection yu lèr nañ élection élection yu civilisé élection yu dal élection yo xamné bu jàllee ña doon dembu. démb ak barki dembu buñu dañuy safonté tapante ay pasu kaf re kenn ku nekk mën a siggi xool sa morom ndax musoo ko wax lu ñaaw wala nga def ko lu ñaaw ndax dañuy xam ne yàlla